mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci sidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen ndokkeel baax baax yéen ñi topp li nga xam ne rek mooy seen site internet di Sine TV tey nag ñu ngi fii ci Njàmbur Sine ci dëkkub Serigne Cheikh Ndigal seen mi nga xamante ni moom Serigne euh, Ismaïla Serigne Ismaïla euh, Diouf ñu ngi fii nag di waajal li nga xam ne mooy bis bu màgg bu tedd boobu di bisu gàmmu Njàmbur Sine bi nga xamante ni Serigne Cheikh Ndigal seen moo koy taxawal fii ci diwaanu Njàmbur Sine ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy uh, waa Njàmbur Sine képp rawatina waa Sine rawatina waa Bawol uh, ñu fekk fi nag ki nga xam ne nag fii nga xamante ne mooy kër Serigne Cheikh Gabou Diop bi nekk fii ci diwaanu Fatick ci dalam lañ ñëw nii ñëw ci këram fekk fi mbooleem taalibe yi ginnaaw bi ñu jàngee li nga xamante ni rek mooy xatmul Qur'anul Karim bi uh, te Serigne ji jàng ko waxtaan bu am solo it ki def ki nga xam ne mooy jëwriñ Cheikh Cheikh Mbissane nekk kenn ci cheikhu sëriñ bi moom it yëkkati na ay kàddu yu am solo sant mbooloo mi ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy délégation yi bi ñu fa bàyyeekoo nag nga fii ci fi nga xam ne mooy waañ bi nga xam ne fi lañu ñu war a defle li nga xam ne mooy xéewal yi nga xam ne moo war a jëm ci bis bi fekk nañ fi nag ñi nga xam ne ñooy soxna yi nga xam ne ñooy taxawal yi nga xam ne rek mooy xéewal yi xam naa dañuy jox soxna si nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo micro su ko defee mu présenté wu wax na la tudd su ko rek wax ñu naka lañuy wajale bis bi ci xewal yi nga xamne war nañ ko waajal tay ji ci gamu gi nga xamne moy gamu gàmmu sin soxna si Bismillah, noo tudd. man Fatou tuddu euh di talibé ci ki señ gabu Diop joge fatik ñëw assister gamu bi euh, gamu Njambur sin. wi euh, ànd suñu talibé yi ñu joge fatik ñu joge Neeraan ak euh, bepp gox Kaolack ñepp assister nañ wa Thiès depuis ñongi fi wajal ko nuñ ko ñu ñuy ya bés yi yëpp waaw yàgg nañ di ko waajal dinañ di ñew Yambour Sine c'est pas la première fois ko waajal ko ñu waajalee bés yi yëpp waaw taal bi tamit taxaw ci massivement goor ak jigen japp ci bés bi pour bés bi mëna soti inshallah wa ñuy suñu sëriñ bu baax tamit. naka ngeen waajal li nga xamne moy xewal yi wara jëm ci bi ah xewal ko ñu ko wajal inshallah comme ni ma la ko waxee rek ñepp ci japp suñu sëriñ bi tamit amuñ morom japp na ci bu baaxa baaxa baax wow bu jotee moom ñëppay jóg kii jàpp ci li ki japp ci li ñu boole lepp ndax lepp mën a sotti dara du manqué inshallah wa lepp ay sotti inshallah wa waaw. na ngeen fas tal ngir japp ngeen ne gan yi fi ñew dinañ ci mëna a xewlu ñoom ñep ah fas nañ togu ñetti mbana parce que dañuy sax année sax dañuy yokku parce que daw ñaar lañ defoon mais hi wali machallah wa waaw sant sëñ bi bu baax ba tay ren ñetti mbana lañ togu wa pour taaliba yi ci barkelu bu baax ba parce que barkeelu yi sëñ bi da koy euh, def pour ñëpp mun cee barkeelu nekul dal bi kessa mo ci barkeelu mais day genn ba ci biti ñepp dañu jog ci biti ñëw fii barkeelu ci bés bi bu su koy wax sax daf ñuy wax ñu sóoraale gan yi pour su ñewé ñepp mëna a ci bés bi aha allah. jërëjëf kon euh, soxna ci ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yalla yalla defal ñu tawféex ci bis bi ba lépp nga xamante ay xéwal la def gën ko ci bis bi suñu borom defal ñu ci tawféex jërë gën jëf